maa ngi tudd Abdou Khadir Faye bokk ci comité d'organisation bu journée mondial Cheikh Amadou Bamba itam di président bu comité d'organisation journée mondiale Cheikh Amadou Bamba bu Morolan ànd ceeg sunuy sëriñ sunuy jëwriñ ku ci mel ni sëriñ Babacar Ciss ku ci mel ni sëriñ Gora Diène ku ci mel ni sëriñ Ibrahima Diène ak mbokki taalibe yëpp ak tijaan yeeg catholique yi ñëpp tey ñoo ngi fi daje mu mel ni dañuy màggal journée mondiale Cheikh Amadou Bamba mën naa ni Morolan ñoom ñoo njëkk a comprendre li nga xamante ni Cheikh Amadou Bamba moom la doon xeex muy jàmm ji nga xamante ne dafa ànd ak tubaab yi fu ne ñu yóbbu ko fa fu ne ñun yóbbu ko fa lu ne ñu def loo ko ko ba ñu ñëwee laaj ko dafa ne xafawtu anil axdaayi turan ñoom ñëpp jéggal naa leen ndax lan wala xad karam naa bani aadama wa xamal naahum fil barri wa razaqnaahum min at-tayyibaati ndax yàlla moom ci boppam moo tere doomu aadama yëpp Serigne Touba loolu la doon prôné Serigne Touba doonte burit la doonte julit la waaye mi def yëpp nag la liggéeyal loolu la ñu bëgg àddina xam ko tey ndox ku nag bi nga xamante ni morolan catholique tijaan murit ñëpp dañuy dëkk bokku ndey bokku baay terewul kenn ku ci ne gëm li nga gëm loolu exemple la ci àddina bi ñu jël ko. li nga xamante ni tànk tey moo xew ci Palestine nga xamante ni ñoo ngi leen di bombardé ndax lan ay jullit lañ ndax lan néew nañ doole foofu déedéet Israël du noonu nit yàllaa ko teral même bu dara waa Israël waa Palestine lu ndaw la ci Israël te xëy na songul ñu leen yàqaluñ leen dara waaye xëy na. am nañ xolu kiñaat ci ñoom rek moo tax ñu ñëw dal seen kaw waaye ana waa droit euh, humain ana waa droit de l'homme ana ñi nga xamante ne ñoo yor droit de veto ana ñu kenn yënguwul tey ndax lan waa Palestine julli lañ non c'est pas ça Serigne Touba nañ delluwaat caay mbindam donte nit ku ñuul la donte sénégalais la waaye dafa œuvré woon pour nit ñëpp sëñ Abdoulaye doon na wax ne tubaab bi nekk ci tugal sax lu mu ru sori sori sori jàmm ja mu am suñ Touba ko waral moo waral tey ñun ñëpp ñu dajaloo fii di wax ni jërëjëfe borom Touba. jërëjëfe borom